di ñaan sunu borom tabaraka wa taala ni ñu ko àggalee ni ñu ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim mu may nu ñu eggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin te lépp lu ñu ci def ci ak jaamu yàlla na ko yàlla nangu te ko euh, di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm euh, di leen yëgal ni tey alhamdulillah ñu ngi fii ci Colobane kër Cheikhul Khadim euh, ngir amal fi xew-xew bu lislaam bu mag muy concours bu alquran boo xam ne ay xale yu mokkal alxuraan incha allah lañ fas yéenee déglu ñu gaaral seenu njàngiin euh, loolu nag réew mi mën ko jariñoo euh, xam ngeen ni bu ñu waxee concours euh, wax kër Serigne Touba xam nga ni wax nañ ñaar yu ànd wax nañ ñaar yu méngoo ndax kër gi lu ñu fi def lii ñu fi def bokk na ci li ëpp solo ci li ñuy def ci kër gi kon. Euh, alhamdulilah bi nga xamante ni ñi ngi fii ci barab bi tey dafi defe loolu euh, di leen yëgal ni itam concours bi ci euh, concours bu am solo la boo xam ne fédération nationale bi nga xam ne moo lëkkale mboolem sëriñ daara yi ci réew mi ànd kooku jaamiatul Moustapha al alamiya faran Sénégal mu université iranien bi nekk fii ci Mermoz ñoo lëkkaloo ngir amal concours bii concours alxuraan ci weeru koor nag eh, ku ne xam na ni lii mooy weeram chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaas ci weer wi ci la sunu borom tabaraka wa taala wàcce woon téeréem bu tedd bi ci sang bu sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw nag dajale fi ay ndongo yoo xam ne macha allah yu takku lañ bari bàyyi ko ci ay daara yu fasantikoo ngir ñu ñëw jongante natt seenum njàng ci alquranul karim eh, concours nag buñ ko waxee Euh, ku ne xel dana dem ci euh, kuy jiitu ak ku ca topp ak ku ca toppaat ndax noonu la war a tëdde waaye euh, bala ñu caa egg itam dañuy xam ne xale yii fi teew macha allah ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ndax bu ñu nee concours mokkal alquran concours tartiil tiim jàng-njàng mu neex nga am fiti ñëw bokk rek loolu mooy wane ni gañe nga ba noppi kon képp ku fi teew rek jàppal ne yow yaay première yaa gañe ka jiitu ak ka ca topp ak ka ca toppaat ñoom ñëpp ñu xam ne ndam li ñoom ñoo ko bokk waaye kenn euh, pertut waaye alxuraan moo gañe daara moo gañe euh, concours bi nag alhamdulilah bi nga xamante ni euh, fédération bi seq na ko jaamiatul Mustafa al alamiya ñu am ci taxawaay bu mag a mag a mag boo xam ne lépp loo xam ne moo ci wàllu finance ñoom ñoo ko macha allah ñoo ko taxawe lépp lu ci wàllu lajna ilmiya ak ak yeneen yi ci aju yëpp. fédération bi itam euh, bokk ci ñi nga xamante ni ñoo yore liggéey boobu kon euh, ñi euh, ñi ngi leen di yëgal ni daal liggéey bi liggéey la bu am solo boo xam ne buy boole lislaam bi la buy boole bokk gi la buy boole liggéey bi la mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew itam mu fas yéene nattu xale yi doon ay mbokk yoo xam ne ñun miin ci liggéey boobu la ñu xam ko lool bokk na ci Thierno Mountaga Gaye bu Fatick ñëpp xam ko ci almusaabaqa al wataniya bi nga xamante ni Euh, Sénico dana ko taxawal at mu ne euh, ñëpp xam nañ ko ci waaye Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, moom itam dëkk ca Touba ñëpp xam nañ ko ci musaabaxa boobu ñuy ñoo xamante ni macha macha allah ñu quali ñu qualifié la naka itam noonu itam al oustaz Hamidou Diallo nga xam ne moom itam spécialiste ci wàllu lajna tahkim ci wàllu kàddu ak ak ak sawtu nu ñu koy natteeg nu ñu koy xoole moom itam bokk ci jamiatul Mustafa al alamiya bokk ci ñi nga xamante ni ñoo fas yenee nattu xale yi waaye Serigne Fallou Samb moom itam euh, di kilifa di ustaas di jàngalekatu alquran euh, waaye itam bokk ci ñi nga xam ne dañoo am taxasus ci wàll gii muy lajnatu taxkim muy natt ay xale ak euh, xayma seenum njàng kon mel na ni ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dogal ñu teew fi tey ci lajnatu taxkim bi ñu am kafa lañ ñu am compétence lañ macha allah ci li ñuy def ba nga xam ne lépp lu fi juddoo rek ñun ñëpp dinañ maase gëm ni Euh, ñi ko doon natt ñi ko doon xayma seen xam-xam egg na ci bu baax a baax waaye yemu ca maanaam doon na métier moo xamante ni def nañ ko defaat ko defati ko wa mën nañoo wax ndax sax ni bokk na ci métier yi ëpp lu ñuy def muy taxkiim ay xale ak di ak leen natt kon lépp lu fi juddoo rek ñun ñëpp ñëpp ñu maase gëm ni loola mooy li nga xamante ni moom la yàlla dogal euh, ba tey itam ñu bàyyi xel ni concours nag bokk yi euh, dogalub yàlla bi ak sance def caa bokk lool Euh, nit dana jàng njàng moo xam ne ñëpp dañuy jàpp ni kii daal bu noppee moo war a jël première waaye bu noppee dañuy gis ni am na ñu ko kawe loola nag la koy waral mooy ñaar da caa nekk am na sew-sew yoo xam ne ñi nga xam ne defuñ taxasus ci njàngum tajwiid duñ ko mën a xam ñoom njàng mu neex mi rek lañuy ñuy dégg fekk am na ay yu ne ca biir yoo xam ne ña koy àtt ñoo koy mën a xam euh, ñaareel ba itam mooy sens loo gis lu ne sens da caa am ndax yàlla dafa bind nit ñi te tolloolewu leen kon ñaar bu ñu ko jiitalee rek dañuy daal di nangu lépp lu fi suñu borom ko taala dogale ci résultat mu génn fi ñu xam ne loolu mooy li yàlla dogal kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gàttal rek kàddu yi ndax xam ngeen ni waxtu wi xaw naa dem xaw nañoo xoj waaye incha allahu taala ngeen xam ne lii nag eh, ab ab ab natt la maanaam concours bi ñaari natt la am da am natt bu njëkk ak natt bu mujj natt bu njëkk bi danañ nattu xale yi nga xam ne ñoo mokkal alxuraan jépp danañ nattu xale yi nga xam ne dañuy ñëw def li ñuy wax tartiil mooy tiim jàng-njàng mu neex danañ nattu yi nga ñi nga xam ne itam diggante ñetti ñetti jus yu mujj yi muy xat sami ba naas yi foofu lañ mën a euh, foofu lañ mane ñooñu ñëpp dañ leen nattu tey bu ko defee nag faron bu ne juróom-ñaar ñi ci raw ña nekk ca bopp ba ñu xam ne ñooña ñooy dem ca final ba final ba nag incha allahu taala talaata bii ñëw ak àllarba lañ koy def fële ci masaalikul jinaan waaye ngeen jàpp ni daal faron bu ne juróom-ñaar ña ne ca bopp ba ñooña ñooy bokk ca final ba ña ca des incha allahu taala euh, ñu tentaat sens rek ci beneen te xam ne yoon yëmut ci benn kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant mbokk yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi tàmbale ko ci mudirul jamia bi euh, waaye itam euh, président fédération bi Cheikh Moustapha Ahmadou Wane waaye tam ku ñu mbokk mi wax Serif Baro mbokk ci jaamiatul Moustapha al alamiya di jàmbaar lool am ci taxawaay bu rëy rëy boo xam ne bañ tàmbali liggéey bi ba léegi ñu ngi coordonné guddeeg bëccëg suba ngoon ak mboolem waa jamia bi daal wala ak mboolem waa fédération bi ñeen ñoom ñëpp ci jàpp euh, rawatina nag sunu xarit sunu sunu wëlëre al imam Mouhamadul Bachir Guèye nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi ñoo ñoo ko ànd ak moom di yég ko wàcc macha allah lépp lu ciy coono rek ñu di ko ñu di ko toggoo ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp incha allah fas yéene dugg ci liggéey bi fas yéene taatan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah Eh, nuyu yi daal ñu ngi ko sof ci nuyu sëñ Moustapha ti di jéem dugg ci liggéey bi eh, waa ku ñu su fekkee rek dégg nga dañuy fugg tabal bii rek xamal ne am na loo war a defaraat eh, ku nekk tamit nga wax riwaaya bi ngay jàng boo toogee yaa ngi toogaal ak téeméeri point li koy wàññi nag ci yow lay aju yow mi nga xam ne yaay jàng incha allah ànd ak mbokk yi ñu bañ a tardé ñu bàyyi ci xel waaye tamit may ñu dégloo bu baax portable yi bu ñu ko mënul fay tamit nañ ko silence yi bu baax a baax a baax ngir bañ a jaxase xale yi wala yàqal xale yi eh, kon ñëwoo Baye Cheikh mbay ban riwaaya warsh baada audu billahi min alsheytaani alrajim iqra min qawlihi subhanahu wa taala wa id qaala ibrahimu rabbi arinii kayfa tuxyi almawta audu billahi min alsheytaani alrajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبه أنبتت أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا نفقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين طيب اقرأ من قوله سبحانه وتعالى فلما أسلما وتله للجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أسلما وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وتركنا عليهما في الآخرين ولقد مننا على موسى وهارون ونجينا, وق ونجينا وقومهما من الكرب العظيم وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه أفلا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين almutasaabiqu saani Keba Taal iqra min qawlihi subhaanahu wa taala qaala qad ujibat da'watukumaa a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim الرحمن الرحيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان ولا تتبعان alladhina la ya'lamun wajawazna bi bani israila al bahra fa atba'ahum fir'aun فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به آمنت به بنو إسرائيل إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني رزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة ربك فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فإن كنت في شك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات حسبك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما واتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذب يعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السلفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرًا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا حسبك وبارك الله فيك المتسابق الثالث مختار سلا اقرأ من قوله سبحانه وتعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثل مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى وأنتم سكارى حتى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل حسبك yaa ayyuha alladina amanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara yaa ayyuha alladina amanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara hatta taalamu ma taquluun اقرأ من قوله سبحانه وتعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جهزهم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 كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج أخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين حسبك وبارك الله صدق الله العظيم